axusu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke Cheikh mu baabu barke Cheikh Adama barke Cheikh mu baabu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar te di leen baalu àq di leen baal àq di leen nuyu ci turu sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général des mourides di ci teg ndigalal di ci teg nuyoo bi di ko jox sëñ Cheikh Fall Gueye mi nga xam ne moo fi nekkal tey Cheikh Adama Gueye ak sëriñ Souleymane Gueye mi nga xam ne moo fi toog toogaayu Cheikh mu baabu ak sëriñ Malick Asta mi nga xam ne moo toog jotaayu sëñ Malick Asta ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaar te di leen jox siyaar ba gën a màgg a ah, di leen xamal ne dañoo jot ndigal tey ci bis bi nga xam ne moom la sëriñ Mountakha yëkkati woon. teg ko ci loxol seek sëriñ seex Fall Gueye mi nga xam ne moo fi nekkal seek Adama ak sëriñ Souleymane Gueye ak sëñ ma sëriñ seex sëñ Moustapha mu daara daara mu njaareem yëkkati nag ndigal li jox leen ko ndigal li moo di bi mu wooyee sikkar Baye Fall yi di leen ci ñaari fan yi di ba ak alxames nga xam ne waxtu ba waxtu wa dellusi la ci ëllëg sa àllarba lay tàmbali ba alxamisaat ci waxtu wañ tàmbali woon mu yëkkati kàddu jox ko sëriñ Cheikh Fall Guèye sant ko ndigal ci sikr boobu nga xam ne dañ koo war a def sikru laa te sëñ taxaa sant ko Baye Fall yi mu jël teraanga ju réy jox ko sëriñ seex Fall Guèye ak waa kër Cheikh ma Babou ak waa kër sëriñ Malick Asta xamal leen ne kët Baye Fall yi sikru laa bi ñu leen leen dañ leen koo jox ñu war koo def teraanga ji nga xam ne moom lañ leen war a terale muy kafe yéen laa ko séddee ah cër boobu nag di cër bu rëy boo xam ne ab cër mënu koo féete kaw ba loolu amee sëriñ Cheikh Fall Gueye yëkkati kàddoom tasaare ko ci taalib yi yëpp jël kàddu gi ak ndiggal li gannaaw bu mu ko joxee ay ay doomam ak i rakam ak nga xam ne ñoom la ko seqal muy sëñ sëñ Souleymane Gueye ak sëñ Malick Asta sëñ sëñ Moustapha Gueye Daara yëkkatiwaat ndigal li tegaat ko ci ndigalal sëriñ Mbacke géey mi nga xam ne moo jiite daayira soppe Cheikh Adama ne leen ni ngeen ko war a taxawoo na ngeen ko ni taxawoo ah ba mu defee loolu it ñu jël kàddu gi sëriñ Mbacke Gueye jëlaat kàddu gi teg ko ci sama loxo xañ na ma ni moo wax sax waaye nag danaa jëm ngir ndigal la. kon loolu amee bañ ko tàmbalee ba léegi ñu ngi ciy dox ba bisu tey bii tey nga xam ne bis bi agsi na jot na sëkkitam kon ñu xam ne ndigal li lu ci waay di mën a def ak loo ci waay mën a taxawee na nga góorlu te taxawe ko ci ndax kat dara desatu ci lu dul jëf jëf rek moo fi des fi ne nii ñu góor góorgóorlu ci loolu bu baax a baax a baax a baax ah di sant nag sëriñ Cheikh Fall Gueye mi nga xam ne moo yëkkati kàddu yi jël jël ndigal li ak ak liggéey bi teg ko ci loxol daayira bi yaakaar ji mu am ci daayira bi yàlla bu mu tas te lépp loo xam ne yéene na ko ci ba tax ñu jox ñu ko yàlla nañ ko jëfee lu rawe lu kawe njortam moom mi nga xam ne moo ñu jox ndigal li kon bu loolu jàllee liggéey bi mi ngi nii lépp mat na jëf rek moo ci des taalibe yi lañu war a def def nañ ko sëriñ si liñ war a def def nañ ko taalibe yi li ñu war a def def nañ ko kon ñoo ngi leen di sant te di leen gërëm te ñaan liggéey bi ñu àggale ko ci niñ ko tambalé muy bismillahir rahmanir rahim agalé ko ci bismillahir agalé ko ci alhamdulilahi rabbil alamin bañ tambalé liggéey bi ba légui ak légui ëpp na une semaine ñong ci dox di ci jëf di ci liggéey di ko dox ba exi wi tay tay nak le liggéey bi tàmbali ñong ni li nga xamné li ci war lepp talib yi lo nañ ko indi ko tek ko ci loxoy kilifa yi kon lolu moy li nga xamné ne mom moom lañ moom la bi santone ñong ci tàmbali nag lañ def tey waaye yàlla ñu ko yàlla ak sëriñ Tuubaa ci ni ñu ko bëggee ci barke Cheikh aadama ci barke sëñ Cheikh Fall Gueye mi nga xam ne moom la fi yàlla teg mu jiite ci yoonu kër Cheikh aadama